wëre ba dem na këng waxi mag dem dañ taal yi président Ousmane Sonko dana bokk ci yile élection am déet ki nga xamanteni mom moy mooy juge bi génn na daal joxe li nga xamanteni mom moy verdict verdict bi la xamle moy que ni le président Ousmane Sonko door nañ ko six mois de sursis six mois de sursis nak boko ko moy mooy di président Ousmane Sonko du mëna bokk yile élection mu nekk mbir mu doy war mbir mu mucc ayep Sénégal nak fi mu né ni mu ngi ni tekk askan wu Sénégal ku nekk di déglu waaye li lèr ba lèr moy ki nga xamanteni mom moy bi door na le président Ousmane Sonko 6